réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. diggante kii di Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ginnaaw bi nga xamante ni àtte woon nañ leen sa àtte bu njëkk ba daanoon kii di président Ousmane Sonko ñaari weer yoo xam ne du ko tëdd. waaye mën nañ ne àtte boobu ñu ko àtte ba noppi kii di Mame Mbaye Niang dafa dafa defaatoon li nga xamante ni moom la ñuy wax appel appel boobu ñu ko defaatee nag ñu àttewaat ko daanaat Ousmane Sonko ñaari eh, juróom weer yoo xamante ni dañ ko da ko euh, dañ ko ko daan waaye du ko tëdd kaso alamaan ko lu tolloog ñeenti euh, téeméeri millions yoo xamante ni da ko war a jox ki nga xamante ni moo di Mame Mbaye Niang àtte boobu nag mën nañ ne daanaka dañ ko war a àttewaat ndax nag mën nañ ne àtte boobee daanaka. mën nañ ne mooy li téye ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko pour si mu bokk ci élection présidentielle 2024 yi kon àtte boobu kañ lañ ko war a def mu ngi nekk le 26 octobre yem ak alxames ñu war ko àtte fi nga xamante ni moo di ci tribunal bu Dakaaru kon àtte boobu bu fekkee ne nii nag tribunal bi dafa maintenir li nga xamante ni moo di six mois yooyu mën nañ ne kon kii Ousmane Sonko du bokk ci élection yi waaye bu fekkee ne dafa annulé àtte boobu daal mën nañu am yaakaar ne kii Ousmane Sonko kon dana bokk ci li nga xamante ni moo di élection présidentielle yi mu mel ni kon daal ba léegi euh, nguur gi walla gouvernement bi day wéy di. daal di tiq ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko daal pour mu bañ a yegg ci élection yooyu noonu daal xam nañ ne bu sa yeggee wala bu ca demee ñoom ñooñee du ñu am dara.